mi Cheikh Sadou Abi mu tedd mii nga xam ne mooy Seyxul Xaadir al Xaadiriyat yi mooy sëriñam ñun xaadir tey ah tey tey tey waliyu di sërif jëmm la joo xam ne waliyu la sërif la soppeeb sëriñ Tuubaa la boo xam ne xamam nga ci baatin ci yàlla ca la ko yàlla wanee lu tax mu sopp sëriñ Tuubaa gën jaa rafeti cofeel waaye yàlla ati na sax ji siwutal sëriñ Tuubaa ji sa et si àddina kenn déggul si njaareem kenn déggul ci gànnaar kenn déggul ci jolofu Cheikh Sadou Abi toog sëñ Tuubaa toog te Cheikh Mamadou Lamine dama ko wax ne sama mag fekke wut loola sëñ ma Lamine nee naa koo gis sax ba tubaab bi woote na ci gànnaar dajale kilifa yi bokk naa ci ñamu na ci ñamu woo moom Cheikh Sadou bi ne daal di sawar lool ci wuy ngir yàlla soppa ji Cheikh fa dajee yàlla mi dogal dogal Cheikh Sadu ak yi dikkul te daje boobee sëñ bi dikk ba agsi laaj rek ñu ne ko dikkul ba mu jubee tubaab bi ca pays ba mu ne nanguwul a agsi dafa daal di taxaw fii mel ni ay garab ay barab yu fa nekk daal ci dana moom mu daal fay taxaw rek wàcc ne mbooloo mi wër tubaab bi fekk sampale na sëñ bi la mu ne wax lépp sampale na ba defam kéewam ba ba ba péncam jag nit ñi daal di yëg ni sëñ Tuubaa nga fee ñu ne fee di wur wuri wuti sëñ Tuubaa wacc ba tubaab bu mu ni cumm tubaab na tubaab na ku rëy xel la te bari science tegu ca baat defu leen waxu leen dafa daal di daw rek wër mbooloo maat yi maanaam ñu dal di wërale ak seen gaaya gaaya rek muy seen penc rek ñu bàyyi ci noonu waaye ba tey gisewtu moom rek fa yaa xajaban baabul mataaj mu fattawun loolu yi Cheikh Matu Lamin waxoon ne day laay biir xeet bi moom Cheikh Sadou Abi di leen tegtal bunti yiw muy ni fa yaa ajaban wona kima babul mata buntu tuba ngi ni mu fatawon bu di buñu bu be hubbi hubbe nañu ya, ko ne dafa dem buntu waxan dafa dem ñaari bato hubbi ci ndajoro bi ci jam moy mu mu fatawon ju ñu suñu lay no ko hubbi hubbe nañu ko señ to abna ngal li kulli murid ñal bepp murid rama bo sakku na jaar ak de kalim ci won hani an li saddinil al kharib allati khada yati suraran minkum wa tikhara hani an wana marete li sa diini ñeel ji la diine alxarib yi di aji tumuraan bi àlla si diini yi nga xam ne xaddaa mujj na yett yu di figre sorooran ngir mbég min kum seen waxtu xaaran loolu ñi ko seere bari na waaye lu ci nekk tudd ca si laf doy na ci seere yiw yi waaye kii moom mu su la ñàkk wax waa xam ngi ndax moom benn bayt la ci da ñu neenu ñi ci sax neena lu ñu waaye kii gën naa rafetal ku dul ma ndax te loolu feeñ na ci ni sëriñ Tuubaa li sëñ ma lamin wax ne faasa min haasa sayyidil jalil lii wax jii bàyyi ko ci sang bu bu mag bi nasiihatan lil ummati dafay laay bi xiyatu Mustafa wa dilaalatun ala ma'al xayr da leen di tegtal barabu yiw wan leen yiw fa mu ne